tay ñu dajé fi ci Lazare di fàttaliku Mafatim Mba Masata Mbay mi nga xamanteni ni si moom moo ci ñun yalla dogal mu génn adina depuis bimu génné adina nak ak légui tay la am at ñu war ko defal ben mémorial fàttaliku ko ñaanal ko fàttaliku ko nak giñ koy defal moy dañu bëgg bépp Jakarta bo xamanteni yaangi ci si Thiès ak yaangi Sénégal soy génn le 16 na nga sol na nga wut masque bu bu noir nga takk ko soit soo ko mënul nga wut braza bu noir nga takk ko ñu fàttaliku ma Fatim Mbaye de beneen bi côté bi may waxee mooy maa ngi taxaw ak président Thiès ville Aline Diop euh, président euh, syndicaliste Issa Dieye ñun ñoo ànd daal def benn collaboration boo xamante ne dañoo ànd pour fàttaliku ma Fatim mbay ànd kook famille bi beneen côté bi tamit di lancer état état message état mooy message bi ma koy laate lancer mooy depuis bi ñu waxee quatre cent cinquante millions yooyu ba léegi ñun gisuñu si benn avancement parce que wax nañ ko boobu ba tey ñu ngi dégg déglu état li ci war yëpp gars yi ñu koy dox mais ba tey daal affaire bi gisuñu si benn avancement suñu sañoon nag ñu ngi interpellé Macky Sall di ko wax li nga xamante ni mooy millions yi nga xamante ni la dikk askanu Jakarta man ñu ngi koy ñaan moom le président Macky Sall mu jéem def si ay démarches fexe affaire bi teg ko ci loxo ñi nga xamante ñooy conducteur jakarta yi parce que soxla nañ ko. bi ñu koy rendre nag si journée mémoriale bi fàttaliku kan moo nekkoon ma ci am war kaa mën a tuddee benn arrêt parce que moom lañ prévoir tuddee ko benn arrêt muy arrêt ma faatim ci Thiam si kaw loolu nag ñu jóg. du xool ne si journée boobu lépp li nga xamante ne mooy ndimbal bu jógee fu mu mënti jógee ñu ngi koy demander aux autorités parce que boobu ba léegi ña digg woon ñëpp ne ñu ngi koy dimbali amul kenn ku ko si dimbali. amul kenn ku ñëw dimbali ak njabootam parce que soxnaam moom la amul kenn ku taxaw ne dimbali nañ ak njabootam ne bu jógee appa ñoo koy jël enchage amul kenn ku jël ne jël enchage charge keroog sa dëj ba ki taxawoon ne Marème Faye Sall dina ko jël en moo jël xale yi ba ba ñuy màgg xale yaa ngi ne la waa Kër Maara ndaw si dafa luwe kon kuy dimbali war naa jot na pour nga dimbali ko ki tëdd at di xaar fu mu si toll war ñëw toog xam fu mu si toll. ñuy toog di xaar daal képp koo xamante ni yaa ngi dimbali jóg nga pour dimbali boo ñëwee nga ànd ak seen waa kër nga dem seen kër nga dimbali leen nga jox leen ko dimbali leen ko bu leen ma ko jox nañ ko ko jox. directement saa famille nañ fa dem ne ñun ñoo waxoon nangam ñoo def nangam dañu toll si dëkk boo xamante ni da ngay gis njiit bu wax te du jëf ba ma Fatim Deye lañ ko fàtte lañ doon wax yëpp man c'était politique. maintenant d'ici le 14 dinaa def benn démarche dem si administration bi. si autorité la ko waxtaan ak ñoom ku si man lu si waay mën dimbali ñu dimbali ko soxnaam kiit alimentaire yi ñuy joxe mais nañ dem dimbali ko si dimbali ko si dimbale yaayam. waaw lu tax procédure yi ba tey génn te niñ di ko xaar loolu ñun daf ñoo yé daf ñoo yéem lool parce que nee nañ amul ku ñëw témoigner mën a seede ne ma Fatim nangam ak nangam non ñun lu ñuy mën a wax mooy ne si kanamu préfet am na ku témoigner. loolu bu ko témoigné wul ñun ñu témoigné ko man maa ngi foofu mën naa témoigné na ba ma toogee si kanam préfet nit jóg na Jakarta wax nangam ñun ñi fa toogoo dépp mën nañ kaa seede mais du ñun ñoo koy recherché kan moo koy recherché la police moo ko war a recherché les enquêteurs ñoo ko war a mais du ñun ñooy toog wala ñoom ñu toog di xaar waa ji ne ko kaay témoigné message bi may lancé mooy mbir mi na leer leer bu mu war leer mooy waxaguñu kenn la nag parce que xamuñu kenn la plainte bi papa ji dafa def compte x mais nañ ñu wax. kële mën a tëdd si jàmm ak salaam ay waajam ak jabam tal ko ñaanal ko ñun ñi ñu tal ko ñaanal ko ñu ne mbir mi tëj nañu dossier bi wala dossier bi accident la woon wala dossier bi diwoo ko rey ki wax ñu si lu leer dossier bi tëj parce que ñu toog boobu ba léegi di xaar mën ñoo am benn nouvelle ñu naan affaire bi seey na loolu sax neexul si xol.